niki ah, ne borom xam xam bokon talibem ba dum jange xam xam ba tag ko di ñibi mu ne ko waaw ah li fi jele de amna solo way dina la wax lo xamne bo moy ju sax mu gën li fi jele li fi jele ndax man ndax seen fa ngeen dekk seen dekk ba amna shaytan mu ne ko waaw man ndax dan leen di jax jaxal mu ne ko waaw bu leen jax jaxale na ngeen di def mu ne ko dañ koy jeñ mu ne ko bu delsi waté bu leen teye mu ne ñu jeñ ko rek mun na ko seytaane munu leen koo ndax ndaxte xaj la ci ab xaj la ci xaju yàlla yi xaj nag boo bëgg boo duggee ci kër gu am xaj nga ragal xaj ba da nga yow borom kër gi ndax borom kër gi moo man ci moom dara kon bu bu ngeen ragalee seytaane jax-jaxale ci leen leen wax auzu billahi boo ko deful ah, boo duggee ci kër gu xaj nga ni dangay ngay jëflante xaj ba te borom xaj ba nekk fa wala oo oh, borom xaj mu dimbale leen mën mënoo laa gaañ wala mu xotti sa yére waaye boo borom borom xaj bi bu na ko yemal rek mu yem noonu la seytaane mel ak yàlla moo tax boo ne aoudu billahi min asheytaan rajim dégg nga yàlla mi moom seytaane dax di tënk seytaane mu koy tim calam kon loolu mooy aoudu billahi min asheytaan rajim mu ne nag ginnaaw bu ma ko waxee tekki lan bismillahi arrahmani arrahim bismillahi rahmaan yonent bi saa sallam moo jàngale kullu amrin ri baalin lam yubda bi bismillah wala ci riwaaya wala mu yubda bi zikrillah fa huwa abtar lépp luy nitaay commencé jiitalu ci turu yàlla mbir mi muy dagg maanaam mbir mi du am kon kay lii yépp dafay lépp luñ def rek man nga yóbbu cëslaayam ci alquran wala ci xadis mu ne kat ginnaaw ba waxee auzu billahi mina shaytaani rajim booy soobu ci wird bi la lay wax de wax bismillahi rahmaani rahim li ngay wax mooy astaghfirullah téeméeri yoon astafurullah téeméeri yoon loolu it duñ ko layee ci dara lu may ci alquran yàlla wax ci alquran ne wa anis dégg wa an istagfiru yàlla waaye di tuub kon kay su fekkee ne waa ji mu ngi wax astafurullah waa ji ñëw ne yow naa ne bidaa dafa xamul rek ci lim ne dafa xamul rek waaye su xamul dina xam ne lim nekk kon mu ne boo waxee baadara istiaada wal basmala nga wax astaxfirullah téeméer yoon comme ni ma ko waxee alquran moo ko santaani ko santaane waaw waqul istaxfiru rabbakum innahu kaana gaffaara jéggalu yàlla mi nga xam ne mooy jéggalu waa ko yursilu ginnaaw boo ko jéggalu waxuma sax jéggal ak yàlla gi ñaaw waaye la may mën a jural ci àdduna yursilu samaa aleykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara lii yëpp di dafay amee ci moo tax mag ñi bu yàlla ji bu suuf woowaan ndox maam asmaan yéex a taw wala taw bi arrêté li ñuy njëkk def mooy def istighfaar jég jéggul yàlla ndaxte dafay waral dafay waral naataange kon kay bu ñëwee ci daaw Seydina Cheikh wii ان ان ان ان ان ان قم في اتمام مولانا رسول الله نكون على الاستغفار في الدول البتر لمولانا شبران ان رك أسس بالسنة والفرقة طريقة بي طريقة محض الفضل ورضواني أسس بالسنة والفرقة لنكو ان شوس في سنة الأخرى جينا بغى استغفار لنا موجودة وقصيد ريا حين ثم صلاة ان النبي جلي شنين عليه الصلاة والسلام بأي صيغة ci siixa boo mën a julli ci nit bu la neexee boo wirde laazim te tax di nga def ko dégg nga da am yoola wirde lakin bi salaatul faatihi li ma uxli azam jël salaatu faatihi li ma uxli xa bi nga xam ne tariqa tijaan yi moom la jagoo ay mbóotam dégg nga nekk ci nit di ci amee lu nekk ci tariqa bi nga jël ko nag waaw ah, mu ne moo gën a màgg de wala léegi nga gis ko xam ne dafa wirde nekk ci xaal boo xam ne Euh, yàkkamtee pare nde mbir mu daal di jël saat saat fatiha bu gàtt maanaam salaatu ala nabi bu gàtt loola mën na waaye nag li gën te ngeen koo taamu mbir mu ne am na la ci gën nga jël saat fatiha lima gën a màgg lima fiha min asawaab ngir la ci nekk ci ay euh, léegi nag dafay ñëw jàngal la salaatu fatiha ngir nga xam lenn ci lam wax waaye nga xam leen ci ay njëriñ yi itam quoi nga ñu mujjee firi salaatu fatiha yi kon boo waxee salaatu fatiha li ma axlaq dañu moom ci tegu mu ne laa ilaha illa allah mi atu mara moom itam salaatu fatiha li ma axlaq ñaata yoon mu ne téeméeri yoon dafa buñ ci wasifa dañu ngi ci laazim suba ak ngoon ñu ngi koy defee salaatu fatiha li ma axlaq téeméeri yoon la ginnaaw la ñu teg ci laa ilaha illa allah mun ca miata mara téeméeri yoon lu ci nekk ci saaya mu ngi ci alquran yàlla wax ci alquran ci salaat fatiha ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ki malaakaam yi julli ci yonent bi yéen ñi gëm yàlla kon fexe leen ak julli ci julli ci yonent bi kon loolu tam alquran moo ko nettee maanaam moo ko digle julli bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga alxuraan bi ko yàlla digle bi mu ko waxee gis nga tënkul kenn moo tax wirde wi itam tënkul la ci benn salaatu boo mën a def baax na waaye nag bi bi mu tànn wax toujours nag ne ab euh, organisation boo ca bokkee yow nga tënku ci ay sartaam loolaa tax itam tijaan yi di jël saatu faatiha di ko wirde ndaxte mooy li gënal tariqa tijaan yi loolu rekk la waaye teg ne ab tijaan mënta ويقولون أن صلاة بيرجيو متقم كن لا إله إلا الله بمجيتم كسلا يمني في القرآن يلا مولا بن دقل جبيت أبرك فهي مجيتي نيت كما تجي الله يعني لتي جعل مدار فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم أباكم بين دفع سيني aj seen farata aj seen waree bi aj ba pare waaw na ngeen tudd yàlla de comme ni ngeen tuddee seen baay waaye tudd leen yàlla lu bëri rek lay teg wax na ci alquran walladina ida faalu faxishatan aw dalamu anfusahum dakaru llaha fastagfaru li dunubihim wa man yagfiru dunuba illa llah ñi nga xam ne bu ñu defee njuum te juum te doomu aadama yàlla ko bind juum juum rek am def man lool buñ juumee rek def mbon mbonte ñaawtee rek xam ne ñoom ñii tooñ nañ seen bopp rek ñu tudd yàlla jéggalu yàlla mais nag yàlla dafa tudd di wax gaa yi weddi weddi nga wa man yaghfiru dunuuba illa Allah gaa yi seen bàkkaar yi waaye ji naan yi nangam nangam yàlla ne ne ni da lay tëkku ne la kan mooy jéggale bàkkaar ku dul man yàlla kan mooy jéggale bàkkaar ku leen bàkkaar lay tëkk soo ñu ko waxee ci laaya ja ñi nga xam ne dañuy tooñ yàlla ba naagu foog ne yàlla du leen jéggal alxuraan déedéet du moom yàlla yàlla mën na jéggale mboolem bàkkaar dégg nga wax kon wir daaw tijaan lépp lépp dafay dellu ci alquran dafay dellu ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kat dégg nga bu tijaan yi lii moo ko mooy laajum suba ak ngoon lan moo des kon lu mel nii wadifa ak zikru juma incha allah dars bi di ñëw dinañ ko ci gën a leer kon lii mooy tariqa tijaani wadkuruni adkurukum washkuru li wala takfurun loolu yàlla moonu ci alquran dañ wax na ngeen ma tudd na ngeen ma tudd ma tudd leen ku yàlla tudd moom nu muy washkuru li dalal ma sant wala takfuri mbule mu maam ci saanu ña safaanu sant mooy weddi ba war a sant yàlla santoo ko yaa ngi yaa ngi yaa ngi weddi yàlla moo tax mu leerale ko foofu daal di la ko dend la ne la ne la adkuru dégg nga fadkuruni adkurukum washkuru li wala takfur kon sant yàlla boo bañee boo ragala tàbbi ci kufur del dëkk ci sant yàlla sant yàlla nag mënta am te yàlla waa boo koy sant sax di nga jaar ñeen ju saa sa waxaat ci salaatu fatih ci dayab salaatu fatih ci xaqam من صلى صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه دنجا مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى عليه ألفا فحمد كتفي وكتفه على على باب الجنة lii kay leer na ku julli ci man benn yàlla julli ci yow fukk ku julli ci man fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci man téeméer yàlla julli ci yow dégg julli ci man junne sama mbagg mii man yonent bi ak sa mbagg ñooy leeroo du dugg xaljan waaye lii kay wax dëgg yàlla ku la ko bëgg a wax ko li bàyyi ñëw radiyallaahu anhu waxoon waaja ne di ko waaja ne sa xam-xam bëri bi ak ni nga mel si xam-xam ngay dem di dugg ci tariqa tijaan parce que considération bu ma amoon moom si tariqa tijaan yi moo tax bàyyi ne ko man julli dina aaya mbokkam jullitam bul wax astaghfirullah mu ne ko julli dina bul wax la ay salaatu bul julli ci ne julli dina wax mbokkam jullitam bul tudd yàlla mu firim salaatul fatiha li ma ughliqa ci firim mu léger na ci firim woyof te yomb kàddu salaatu faatihi li ma lim am ci anami firi ki ay maana lott nañ ci wax ko waaye lott na ci temps nit di ko leeral te sax buñ demoon ba nar ko leeral am na lu tënk mooy ne du yépp la wax ci ci foo xam ne ñépp koy mën a dégg dafa jàngale woon ne da fi taabiiri fi kulli maxfali qad intaqala al asraaru min xaysu yujharu mu ne ci mbindam jàmm nekkut ci koo xam ne dafay wax rek ci fu mu mën a nekk place bu mu nekk rek di wax wax maanaam di wax mbóot mbóot dafa am ndax qad intaqala al asraaru min xaysu yujharu mu ne mbóot jógee na ci mbóotam la jógee na ci nekk mbóot saa yu koy wax ci ndëneel جرنا بايقل بخلنا فنن سر لا يجر عند الإجهار بود دينكو جتي تندني واجي بقد جتي بود تندني رنا دفعي نخبا بمايا لما أمدن بود ما تخيتم نك يعني بودي كن دوكو سانيا ما جمعنا بني تمبان نانجلي مولانا شيخ الله يجب بقد تنكو waaye du ne dañuy tënku ci ni jamono bëggee rek wala rek toog di wax waa di woo bëri secret moom de la mooy wax ci xam-xamu baati naan ñun duñ doxee noonu bu nekk daal ñu ngi xool mbir mu nekk lañu ci bàyyi ñu sa daan jigéen ñu defee ko noonu nam daan defee ñu defee ko noonu mosu gis muy toog ci ndeneer di nettali ay mbooti yàlla wax na sax ne mboot yi ma yor nekk na ci man ay xati xati xat kenn xam ko bu jotee rek nag la ko joxe waaye ci anam bi gën mooy fam ko war a joxe loolu itam mboolem kuy déglu wax li nañ ci baax moo tax bu ñu ne dañuy firi saatu faatiha li ma ko la looloo tax ñu wax la ko dafa ne allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi li ma ko la salaatu bi ne nañ wàcc nañ ci yàq na wàcc ci xutbul bakk yi ma ne waaw alquran ji kay ci lañ ko fekk waaye yàlla da ci may nit ci dégg boo xam ne ka ko jiitu woon xëj na ko dañu wax yàlla heure bu nekk ñu ngi wàcc xam-xam yàlla heure bu nekk mu ngi koy ñu ngi loolu nag heure bu nekk la ak saa su nekk sama sëriñ daf doon joxe misaal ci ndigal ci turu yàlla ndigal ci salaatu faatiha nit am ko keneen weddi ko ne alquran ñëpp ko bokk loo ci mën a ngir jegoo ko ne koy joxe ndigal mu joxe ci misaal ni un deux trois ba dix ay millions yoo xam ne ñëpp ko bokk dañ ci léegi date ci li la neex def ci li la neex ci zéro ba un deux ba dix ñëpp ko bokk nit bu ko anam ngay dem di abonné ji orange wala ngay di Expresso wala di dem di fa jël abonnement ñu jox la quelques chiffres neuf chiffres wala nangam nga jël ko ñëw def ko sa téléphone di jënd seen crédit di kii mais parce que ñoom dañoo noose wu góorgóorlu nañ ba numéro yooyu ñëpp bokkoon ñu jël ko di ci fayeeku xaalis yaa courant yaa ñoom ko bokk parce que lu tax nga koy dem di ñu la koy jox parce que am nañ sa loo amul dañ wax am nañ ci réew ya loo am moo tax nga ñëw ñu jaay la ko wirde wi itam waa ji góorgóorlu ci yàlla bu yàlla may ko ci xam ne may ko keneen nga bëgg nag may góor nga am ñu ñëw jaay laaj laaj ko ci ndigal mu doon orange seen numéro yi lu mu bëri bëri boo demoon ñu jox la ko mënoon ci biir lii lañuy ñuy déggee tariqa lii la ñuy déggee wirde yéen ci tax yàlla jéggal ko iblis yàlla jéggalu ko moom baat yam tuube daf ci am ndigal yalla ko ko iblis mom baat yam tuube amu ci ndigal kan, moko tere motax ñom ñaar seen tuube yam dengo motax ñom ñaar biñ tuube ci yalla jëgël ko ko yalla jëgël ko laq adam min rabbihi kalimat adam mom yalla ko jox baat yam tuube ko ni ni mana nango sañi tariqa kon salat fatihi ñaan ñak ñak ci cheikh tidiane lolu mom du problème mën na cee mujj jot am ci lu ciy kenam maa fi njëkkoon kenn bu ma jiitu yàlla waxut loolu aadama fi njëkkoon mu ne asalaatu faatixe lii la allahuma salli ala sayidina muhammadin yàlla yal na nga julli ci suñ sang bi di muhammad nga xam ne turam yi rek nga jëmmi sant la moo tax bu waa Quraysh daan di ko xas naan muhammad nii dégg nga naa eh, di ko xas naa ñoom duram turu Muhammad li ñu tekki ci arab mooy ku sant tur dafa neex lool bu ñu koy xas ñoo duñ tudd Muhammad muzammam lañ koy wax daa di ne muzammam wax lu ñaaw nañ buñ paree rek ndeysaan mu ne ah waa Quraysh daal ñoom ñoom xasuñ la ñuy xas man tudd ma muzammam man naa Muhammad kon turu sant la sallallahu alayhi wa sallam yàlla yéen a ngi ci borom ki nga xam ne alfaatixi mooy ku ubbi yàlla bi ñu tëjuwoon moo tax mbooleem ku bëgg am dara ci yàlla ginnaaw yonent yàlla muhammad bi mu ñëwee buntam rek nga ko mën amee budul ci buntam mënoo am ci kër yàlla moom kon mooy alfaatixi jamaa uxliqa mooy tijji li tëjuwoon li tëjuwoon lan moo tëjuwoon ak bari tëju baatu fekk na xel yi tëju ñun ñoo xalaat lu rafet. lekk na xol yi tëju nañu mën nañu yéenewante jàmm mën nañu bëggante di xeebante di rëy di nangam yooyu yëpp buñ ci yëpp tëju woon moom moo ñuy tëj sallallahu alayhi waaye alxaatim lima sabaqa moo mottali woon moo tëj bunte ñu woote ak risaala loolu mooy xaatim lima sabaqa yeneen ci ñun liñ bëri bëri moo moo mottali ginnaaw am moo tax imaam bu sooy tagg ko ne jiitu yonent yi ci moom tekkiwut gën koo tedd waaye li mu li mu nimmeel mooy taqdiimal maqduumi ala alal xidam jiital ak njaatige bi surge yi bi jiital surge yi ne dem nañ ci tool yi maa ngi ñu jiitu ko ci tool yi jiitu ñu ko jiitu ci tool yi maam bu sori ñu tekkiwul ne ñoom ñoo waaye te leen yebal fii ko mooy seen njaatige ñu ne moom déggee ñoo ji ñu jiitu ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam naasiril xaq bil xaq naasir aji dimbale ji xaq yàlla bil xaq ci dëgg dimbale yàlla in tanzuru laa yanzurukum wa yusabbit aqdaamakum su ngeen dimbale yàlla yàlla dimbaleen te samp seeni ndëgg wax jëmu nga njëkkee ci Yonent bi sallallahu alayhi moo tax li noonu bëri bëri seen fexe mos mën a yegg ci moom parce que mbootum yusabbit aqdaamakum tur yàlla la bokk bil xaq ci dëgg dimbale yàlla ci diinaam ji bu la neexee nga ne xaq bu mujj bi dégg nga mooy dëgg wala nga ne mooy diine lislaam dimbale yàlla ci diine ji yàlla nag bu leen dimbaleen yàlla yàlla dimbale daf la bëgg a dimbale ndax yàlla lott ci dara bañ ko cee dimbale waaye daf la bëgg a nag bun si yow jaam bi moo tax mu ne la dimbale yàlla yàlla dimbale yonent boobu nag wal haadi boo ko ne si doon haadi mooy Muhammad haadi aji gindi ji ila siraati jëm ci sa yoon wi yow yàlla almustaqim dara di jub yàlla na nga bind fii nii ci li nga xam ne garaaj yëpp yow yaa ko ràngal yaa ko def mu nekk xeedi ila siratil mustaqim ay eh, ila siratil mustaqim ginnaaw boo jullee ci moom wa ala alihi yàlla na nga julli ci ñooñu ahlu baytil kiram xaqa qadrihi kem dayoom xam nga yow miy julli ci yonent bi mënoo xam dayoom yonent mukk وانجب إلى ذاته ما شئت من شرف وانجب إلى قدره ما شئت من عظم لقف إن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفضل